du yaa dugg ci laay bu nit ki di ma xas xolal man li ma yor yow yoroo ko nee naa la man maa la gën a bandi yow bandiwoo man maa la gën a bandi yow bandiwoo waaw ah, yow bandiwoo de da ngay bandi bandiloo ok xaaral rek léegi ma génneel la doo jigéen bu kat sa bakkanday bi yow nga xam ne dangaa dem ñu a sa nday ba sa bun bi di senn yow dangaa mën a xas kenn yow dangaa mën a xas kenn ñu wax ngay baat ay nit pour ñu saaga Ousmane Tounkara nee naa ne xool saay audio dama cee yor ba doyal bii laay maye bës bii laay maye. c'est le travail de la dañ ko doon sosal ci sàcc oto nee na moom du sàcc kat oto ma may leen bii bii maa leen ko may de déglu ko bu baax. non, je ne pense plus que ça, c'est le travail de la police. Maintenant, il n'a qu'à déposer la plainte et je vais répondre à la plainte. Vous avez retiré l'argent ou bien vous n'avez pas retiré l'argent. Vous dites vous avez récupéré l'argent. On est à la recherche de la vérité. On est à la recherche de la vérité. Allô? Ok. J'ai retiré 9 millions de ce jeune que vous avez en prison. Je l'ai retiré 9 millions. Regardez. Mmh. Il m'a dit qu'aujourd'hui, ce matin, il m'a appelé et Tunkara, il y a deux ans de cela, tu te rappelles Mais oui, je me rappelle parce que je suis seulement allé chez PAD une fois. Ok. Donc, je me rappelle. Ok. Maintenant, allô Oui, je me rappelle. Donc, ok. Donc, vous avez pu acheter les véhicules. Vous avez remis à l'un de ses amis, c'est ça Monsieur, cette personne qui est avec vous là, là-bas, il n'est pas l'innocent vous faire croire. C'est un escroc. Il m'a appelé plus de 50 fois à cause de ces problèmes. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, eh, écoutez-moi, monsieur Tungara, écoutez-moi, monsieur Tungara. Vous avez pris de l'argent de quelqu'un pour acheter. Effectivement, et je livré à son ami. Vous avez livré à son ami. Oui, son, son... ami l'argent à MoneyGram aussi à son ami pour renvoyer la voiture en Côte d'Ivoire. Son, son ami s'appelle comment euh, J'ai son numéro, attends. Donnez-moi son numéro. Eh, Ousmane Tounkara gis na àdduna comme man na lay xamal ne la man nee naa la daanuma fréquenté ay sénégalais man daanuma fréquenté ay sénégalais yow bandi woo woyu woo li ma yor ci yow bu ma ko tegee doo doo génn ci réseaux sociaux bi barki alxuraan du asana la may bëgg li ma yor ci man maay fay sanda yam ajaratu Ousmane Tounkara doo doo saaga Macky Sall te lépp lay kattandaayam transfert xolo Koura Macky lépp lay jox Koura Macky maa la ko wax ba ci numéro waa ji Interpol maa koy jox Koura Macky génneel numéro téléphone waa ji la ñoo ngay gox dox ñu ci kaw maatu gën a ko maatu gën a mën a ko loolu yu bëri laa yor fu wax suñu teel a eh. Ousmane Tounkara li ma yow xolal xam nga semaine Interpol bi la doon woo xolal allo ngeen alo jaay bandi bandi wu leen. ah allo. allo. oui oui. oui oui. vous vous appelez comment. Souleymane Tunkara. vous c'est Souleymane Tunkara. oui c'est Voilà. Je suis aux États-Unis. Et si tu as besoin que je me présente à n'importe quelle police, je peux me présenter à tout. Euh, quelle est votre adresse aux États-Unis Mon adresse, c'est 239. Oui. Avalon. Euh, J'entends pas bien. Comment 239. xaaral ma coupé ko fii ajaratu Ousmane Tounkara dama koy coupé fii xamal ne la xolal gis nga àdduna gis nga àdduna dafa tuuti ñu ñoo yaakaar ne rek ñu ngi France Côte d'Ivoire sori na mais ci yàlla xolal daa mel ni France ak Côte d'Ivoire da ngay xëpp xëppi jàkkaarloog d'Ivoire wala jàkkaarlook beneen dëkk nee naa la nee naa woon leen ne man musuma fréquenté sénégalais man sa relation yëpp xam nga lan la ivoirien congolaise camerounaise yooyu man yooyu laay fréquenté du doon dugg ci laay bu ndaw soosu dinaan ku sa ndey ak sa baay yeewul àddina yeer la xaw ma ku doon ak di ko encouragé xaw ma nu mu tudd ndaw su tuuti dootu kanamam bu woo bu mel ni new gis nga Ousmane Tounkara dama am ay audio yoo xam ne xolal j'en ai plein yoo xam ne sama téléphone mais xam nga lu gën a bon mooy ngeen jàppee nit dof mu dof doful seen kaw nag diktuwul seen ndey da ngeen ma xamul gis nga bu ngeen ma xamoon di ngeen def attention ci man Astou Diallo moomu war na toog kenn mësu ko fee saaga ne ko monsieur Diarra kenn mësu ko wax sa jëkkër moo doon capitaine bateau le Joola bi bi bi bi bi décédé bateau le bi bi plongé xam nga kenn mësu ko koo wax nit ñi dañ ko doon saaga sa dëkkan lay sa kooyu baay sa copparetu man ma ñëw tegal ko ay argument sa taalaay mbay kooku dama koo lijjantiwul ndeyam parce que man daf maa woo appel vidéo su ma neexoon dama koy capturer mais pour man xoolal ci man kan la lijjantiwu ma dafa ndey man ña ko ngemba laay waxal ñii di wax Sonko defu ma dara ma koy saaga Ablaye Wade ñi koy saaga ñoom ñiy saaga waa Sonko yi saaga Wade Wade defu leen dara moo tax ma ne data ndeyu Sonko ku ànd ak Sonko sa caapa ndey élément bu nekk biir France am fit laa la xoolal woo ma nga jàkkaarloog man ma xorom xoolal toj sa caapa ndey ko Macky Sall ci kees yónnee ko ko Sénégal maa ngi lay xaar yow Fatmata Dansokho nga ne man musoo maa saaga Fatmata Dansokho nga ne man musoo maa saaga yow na ma lay xaar gis nga yow appel bi ngay def ci réseaux sociaux yi di woo Assane